بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون kon dafa mel ni li ñuy sàkku mooy délégation bi nga xam ni euh, ñoom ñoo fi ñëw ci di délégation bàyyi ko Serigne Mor Mbaye Cissé teewal ko fii dañuy sàkku kan mooy jàllale seen mesage seen tur ñu dalal ko bismillah ñu leen fàttali ne délégation bu am solo Serigne Souhaïbou Cissé doom Serigne Mor Mbaye Cissé Serigne Bassirou Dieng Serigne Elimane Gueye Serigne Soda Serigne Omar Silla ñoom ñëpp nekk délégation bu am solo boo xam ni alxuraan rek dëgg-dëgg moo leen mën a yëkkati si jataay yu mel nii kon mel ne ñu ngi xool ba am kan mooy yëkkati. kan mooy wax ci seen tur pour jàllale ay message yoo xam daañu ko mën a jàngee ci Serigne Mor Mbaye mu mel ni kon kon noonu nga ko déggee Serigne Serigne bu Cissé doomu Serigne Mor Mbaye Cissé moom mooy moom ngeen di gis noonu muy ñëw pour jéem a pour jàllale ay kàddu yu tënku rek pour njëkkanteeg waxtu yi ñoom na ñu ngi leen dara jàll lu mel ni ay 15 minutes rek Serigne Souhaïbou pour ñu mën a. ak dund ci sëriñ Mor Mbaye loo xam ne daañu ko mën a yóbbu la incha allah. a billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli wa sallim wa barik aleykum wa rahmatullahi taala mbokki jullit ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq ci weer wi tedd wi ñu nekk ñi ñaan suñu borom mboolem jaamu yàlla yi ak mboolem pas-pas yi ñu ci am ak yéene yi suñu borom mottali ko te nangoo te ful ko ñu ngi jiital ci nuyoo bi nag kilifa yu tedd yi nga xamante ne nii ñoo jóge ca sunu sëriñ suñu lépp suñu yaakaar Cheikh Mouhamadul taxa moom sëriñ Basiru Mbàkke sëriñ Ahmadou Rafaax yu jiite ko ànd ak sëriñ Ahmadou Badawi yu ànd ak sëriñ Basiru moom sëriñ Abibu ak mboolem kilifa yi ñu àndal jóge Tuubaa jóge ci sëriñ bi bu ñu leen nuyoo nag ñoom yóbbaale nañ kilifay diina yépp yi nga xamante ne ni teew nañu fi di leen nuyu te di leen sant te di leen siyaar di nuyu tamit alxaaji Serigne Seck mi nga xamante ne nii moo jiite C3S di kërug liggéeykaay gi nga xamante ne cere liggéey tam xalaat xalaat bu rëy bii te am solo nga xamante ne nii moom dafa bokk ci liggéey boo xamante ne nii day wéel liggéey ba nga xamante ne nii mag ñi ñi ngi ko doon def ci alxuraanul karim ñi ngi koy sant bu baax te di ko gërëm tey di ñaan yéen a jii mu ci am ba tàmbali ko suñu baram may ko doole may ko kàttan ba ni mu ko bëggee ak fa mu ko yéenee mu àgg fa ci barke alxuraan al karim barke sëriñ Tuubaa xaadimu rasul ñi ngi taxaw fii nag di leen nuyu ci turu sëriñ Abdou Lahad Cissé mi nga xamante ne nii mooy xalifa sëriñ Mor mbay Cissé moo waxaan naa ñëw teewal ko fi ngir mbégte moom am ci bés bi ak boole ñu ak ay kilifa yoo xamante ne nii suñu mag di suñu jëwriñ di sëriñ mbay ngiraan jiite ko mu boole ñu tamit ak sëriñ basiiru jeng mi nga xamante ne nii mooy jëwriñ ja nga xamante ne nii moo féete ca kër sëriñ maalik jeng yor liggéey bu rëy ba nga xamante ne nii sëriñ Malick Dieng ma ngi ko doon liggéey mu ànd ak sëriñ Omar Sylla sëriñ Omar Sylla képp ku tudd suuru sëriñ Omar Sylla sa xel dina dem ci alxuraan waaye tamit sa xew dina dem ci ay maamam yu tedd ya nga xamante ne dañ doon liggéeyal alxuraan di ko liggéey sëriñ Touba moom tamit liggéey boobu la cay liggéey ca njaareem mi ngi ànd tamit ak sëriñ Pape Mayande Samb nga xamante ne nii tamit moom ci ñuy jàngoon ci sëriñ Mor Mbay Cissé la ginnaaw ba mu jox leen sëñ Malick Dieng ñoom tamit ñu ne ca liggéey boobu di ko taxawu di nuyu tamit bu baax a baax di siyaar ñi nga xamante ne nii ñoo ànd jóge njaareem sëriñ Elimane Guèye mi nga xamante ne nii moom mooy doomi sëriñ Moustapha Guèye sëriñ Moustapha Guèye mi nga xamante ne nii mboolem tey jii ku aju ci sëriñ Mor Mbay Cissé moo xam nga nekk njaareem moo xam nga nekk Touba moo xam nga nekk Ndakaaru moo xam nga ne bitim réew ñoom ñëpp tey jii mooy suñu kilifa ndax liggéey bu tedd ba nga xamante ne nii moom la ko sëriñ Mor Mbaye Cissé euh, euh, bàyyee kenn ku ne xam ne guddi ak bëccëg loolu la nekk amul soxla ki lenn lu dul jàngale alxuraan ak jàngale ko mu ànd ak ay rakkam sëriñ Soda Guèye ak yeneen mbooloo yoo xamante ne nii ña nga jóge ca sëriñ Moustapha Guèye kon boog ñooñu bu ñu fi teewee sëriñ bi dana woon bu ñu ñëwee fii ki Ndakaaru tamit nañ ànd ak ñi nga xamante ne nii ñoo nekkal fii tamit sëriñ Moon Mbay Sëri Ndakaaru jiital ci sëriñ Mahmadan Sarr mi nga xamante ne nii daara sëriñ Moon Mbay Sëri ci Liberté 6 moom moo ko jiitee di fa liggéey tamit liggéey bu am solo ci alxuraan mi ngi ànd ci jataay bi neewoon tamit nañ ànd ak suñu ay wëllëre suñu ay xarit yoo xamante ne dañuy liggéey liggéey bu am solo ci alxuraan mooy waa kër Alaaji Ahmad Gay Tamba yor daara alxuraan ji mag a mag ca Mbambilor di fa jàngale alxuraan te daara joojee tamit mu bokk ci daara yi nga xamante ne nii dafa sosoo ci daara sëriñ Mor Mbaye Cissé ndax seen bàyyi alhaaj Amat Gay Tamba moo leen joxal jox leen sëriñ Mor mbay Cissé mu leen di jàngal ginnaaw ba nag jàngee ba noppi mu sàkk ci sëriñ Mor mbay Cissé ne ko bëgg a taxawal daara bëgg nga jox ma ay jàngalekat boo xamante ne nii moo may taxawal daara ja sëriñ Mor Mbaye Cissé jox ko sëriñ Yuusu Sow sëriñ Yuusu Sow taxawal daara ja ca Mbambilor te ba tey jii bokk na ci daara yi gën a mag ci Sénégal yu fay mokkal di fa jàng ay doomi lislaam ñu yor leen te amul duñ fay dara di di ko def rek ngir yàlla ànd nañu ak doomam sëriñ Cheikh gay ak magam sëriñ Mouhamadou gay ñoo tamit ñoo ànd ci jataay bi xam naa nag dañuy tënk sëriñ Amsatu Silla tamit di setu sëñ Mañaaw Silla sëriñ Saaliwu Mbàkke yoroon ko ñëpp xam ko gi sëriñ Saaliwu Mbàkke moom tamit ànd nañu ak moom ci délégation bi sëriñ Balla Ndiaye tamit nekk jëwriñ sëriñ Moon Bay Sey ca Kaolack moom tamit ànd ak sëriñ Bay Ngiraan ñëw sëriñ Mori Diouf tamit nekk jëwriñ sëriñ Moon Bay Sey ci Thiès moom tamit ànd na ki bi ñëw ñu ànd ak tamit sëriñ Malick Jigal ak sëriñ Ibrahima Jigal ñi nga xamante ne nii ay jarbaat lañ ay doomi sëriñ Bakki Jigal lañ waaye fal wi ñu doon teg léegi ci suufu eh, bi ñuy présenté eh, sëriñ Moon Bay Sey sëriñ Bakki Jigal moo ko def ñoom tamit ñu ngi ànd ki jotaay bi soxna maam awoo dem tamit mu ngi ci jataay bi moom lépp la ci kër ga ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm xanaa nag day di sant bu baax rek ci taxawaay yu mel nii nga xamante ne nii man nañoo wax ne ci li faye li sëriñ tubaa faye suñu borom faye sëriñ tubaa ci alxuraan la bokk ndax bu demee ba ay doomi daara summeeku te bokkuñu woon ci système bi système bi wan leen ginnaaw ndax dongab daara moom li ñu ko xamee woon rek mooy jàng yalwaan yi lu mu dunde dem ba loola ñuy laxasaayu sos seeni liggéey liggéey ya dem ba ràññi ci biir réew mi bokk ci compagnie yi nga xamante ne nii bu ñuy misaal compagnie yi gën a mag ci réew mi dañ leen di boole te ñu génn ca daara yemuñ ca génn ca dem ba nga xamante ne nii liggéey ba toll na fii ñu mënaan koo jëme feneen ndax société buy jàppale ay mbooloo yàgg naa am ci réew mi waaye nag ñoom ñu ne day seen liggéey yépp ci alxuraan ak ñooñ alxuraan lañ ko jëme loolu kon mën nañoo wax ne xel mën naa dal bu baax a baax a baax a baax ni ko fi sëriñ sa Sam Mbàkke waxe léegi kon boog àllaa gi sëriñ ci turu njaboot ak sëriñ moon mbay sa gépp ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant tey rafetlu sa xalaat bii nga am maa ngi koy waxtaane rek barki démb ma ne sëriñ Tuubaa moom li ko suñu borom fayee mooy mbooloom muy tey muy ëllëg la mu waxan ne li ma leen di digal mooy ngeen yor ji koy yamb ji koy yamb mooy lan garab gu nekk day dem fekk la fa gën a rafet mu tànn ko boole ko def ko muy lem ba kenn ku ne mën koo jariñoo waaye nag bu leen yor mukk ji koy ngóor ji koy ngóor mooy aw weñ day dem fekk garab gu nekk la gën a bon mu for ko indi ko bu ñëwee mu doon loo xamante ni kenn du ko mën a jege yéen nag kenn kenn xam ne lii ngeen def ci tànn sëriñ Tuubaa yi la bokk ndax loo xamante ne nii lu ñëpp rafetlu la juróom-ñaar fukki nit ak juróom nga dagale leen ñu bind alxuraan ci benn bis xooluñu ko loolu kay nu ko nekk xam na ne liggéey bu rëy rëy la loolu ñu ngi ko doon séentoo ci ñeneen waaye nag séentoo wuñ ko ci compagnie boo xamante ni kat dañ ne mën naan compagnie bi kat pour pour ngir ngir ngir wut ngir wut euh, euh, bénéfice la waaye yéen xam nañ ne yéen sénégalais yépp war nañoo gën a fonk compagnie bi kuy liggéeylu xam ne ñii day ku fa dugal sa alal alal ji jëmul ci alaaji sëriñ Seck jëmul ña fay ña fay liggéeyee waaye ci alxuraan la jëm ci ñooñ alxuraan la jëm loolu tamit waa réew mi yëpp war nañ koo bàyyi xel te di leen jàppale bu baax a baax sëriñ Mor mbay Sène nag moom mi nga xam ne moom lañ tudde bés bi li gis mbay Mbaye nga daan wax léegi ñu wax ko ci dañ koy tënk rek mbindum alxuraan képp kuy jànge njaareem nekk sëñ Mor Mbaye Cissé na ne moom li mu doon fonkee nit mooy man alxuraan ak man a bind donga bi boo ñëwee mu tàlli wa jox la boo mën a guta boo tàmbalee jàng rek tàmbalee bind kenn ku nekk xam ne ne fii ñu fi gis naa fi ñoo xam ne ñu bari ko sëñ moon bay sa jàng kenn ku nekk xam ne miin nga boŋ bi sëñ moon bay sa daa bind ndax moom boo indee alxuraan moom dalay fay boo bindee saa soo bindee boo ñëwee boo ko joxee téere bi boo amee xaalis day génne xaalis fay la bu fekkee ne amul xaalis day bind bong jox la ñëpp miin nañ ko man Mor Mbaye Cissé maa la yoreel nangam bong boobee dongay daara yi ci nañ daa dem ca bitig ba jox ko bong bi ngir mu jox leen saabu wala mu jox leen dem ca jaaykatu gerte ba mu jox la caaf bongu sëñ Mor Mbaye Cissé donga bi sécurité woon ci moom la ngir lu muy am ndax sañ Mor moom daawul bayloo amutoon ni tool daawul sàmmloo amutoon ni nag amutoon lenn lu dul jàng ak jàngale waaye nag ñëpp ñi nga xamante ne dañ ko miinan ci daara ji xam nañ ne loom daara ji donge donge yi xaalis bi ñu daan jële sëñ moor moo leen ko daan jox ci mbind la leen ko daan joxe waaye nag sëñ moor mbay si tamit ngir ngir waxtaan ko ci waxtaan bu gàtt rek ndax ñu sëñ moor mbay si ñu bëri dañ ko miin ci ba mu demee ba am barke ñëpp naan sëñ moor mbay sëñ moor mbay si ñëpp di fa daje waaye nag ci tumburanke gu metti la njëkk a jaar ndax ni ma ko waxee noonu baayam bi nga xamante ne nii sëñ Tuubaa digal na ko mu jàngale alxuraan fi mu jógee mooy sëñ njaase siise dafa siiwoon lool ci man alxuraan ba réew mépp naan njaase njaase njaase ci man alxuraan ba sëriñ bi dégg loolu ñoom tamit mag ñi baax gi bëgg gi ñu bëggan lu baax ak sëriñ bi fi mu toll ci lu baax ñëpp xëñte woo dem seeti sëriñ bi ngir baax lu baax la ñuy dégg ci moom bi mu ñëwee nuyu sëriñ bi sëriñ bi ne ko njaase dégg naa da ngaa man alxuraan lool sëñ njaase tontu ko ne dama ko man ba jàpp ne ku dul man maa la ko dàq sëñ bi ne ndax mën nga maa jàngal alxuraan mu nekk ko mën naa ko de mu ne ko bu ñu jullee ba noppi ñëwal nga jàngal ma ko nee na bi ñu jullee gee ba noppi mi ngi ñëw fekk sëñ Tuubaa tokk lu mel ni ak tóoj sëñ bi ne ko bismillah muy tari alxuraan di ko wër tàmbalee bismillahi rahmaani rahim alif lam mim ba minal jinnati wan naas sëriñ bi ne ko njaasale li nga doon wax dëgg la man nga alxuraan lool waaye nag alxuraan moom da koo moomut nee na sëriñ Tuubaa daal di fëgg dënn ba moom sëriñ Tuubaa ne ko alxuraan wal hadis wa ko lii loolu man man maa ko moom ne ko njaase man ngaa bindub kaamil mu ne ko waaw mu ne ko boo masaa bindub téere noo koy def mu ne ko man de boo masaa bindub kaamil dama koy bind ba mu ma jaay ko ñetti dërëm ndax man alxuraan lay dundee bu ma ko jaayee jëndaat ci këyit ak daa ak xalima sama njaboot balaa kaamil benn noppi balaa ñetti dërëm yee jeex beneen kaamil noppi sëriñ Tuubaa ne ko demal bindil ma ab téere te indil ma ko sëñ Njaase nee na ma dem bind ab kaamil ba mu noppi ma ñëw jox ko sëriñ bi sëriñ bi xool kaamil bi ba noppi daal di jël bi kayit daal di jël bi ak kayit bind ab leetar ne sëriñ Masamba Diop Saam teralal ma borom téere boobu yi sëñ Jaasa jël téere bi jox ko sëñ Masamba Diop Saam sëñ Masamba Diop Saam xool téere alxuraan bi xool mbindum sëñ Tuubaa bi jël leetar ba def ci poosam génne ñetti téeméeri dërëmi nguur du jox ko ne ko kaamil bi mayaat naa la mbindum sëñ Tuubaa bi ma gënal moo ma gënal mu del ci sëriñ tubaa sëriñ Tuubaa ne ko gis nga Masamba mu ne ko waaw mu ne ko noo def ak moom sëñ Njaase nettali ko nii mu def ak sëriñ eh, sëñ Masamba Diop sëñ Masamba sëñ Tuubaa ne ko Njaase lu ma la waxoon alxuraan ak hadiis ak njëriñal àddina man la ko sëñ suñu borom may daanaka xanaa mbir de ku ko moomul doo ci man lii mu la sëñ Njaase ne ko déedéet du mu ne ko bis ni tey nag digal naa la ngay jàngale alxuraan ngay jàng alxuraan te di ko jàngale dinaa la defal loo xamante ne des na tuuti dinaa la defal loo xamante ne da nga ca jariñu di ki jariñee sëñ jaase booba la tàmbalee jànge alxuraan sëñ jaase ci loolu la mas a nekk ndax sëñ jaase bari kilifa yoo xam ne ci yoonu murit nekkal nañ ko daaram jàng fa mën naa koy tudd ñaar rek ñoo xamante ne nii danga xam ne kon sëñ Mahamadan Jobbe moom sëñ ma sàmba foofe daara njaareem la jàng sëñ jaase ko jàngal ak magam sëñ Moodu May Mbakke moom sëriñ ma sàmba kon moom loolu ci loolu la ma a nekk sëñ moo tamit nag ba sëñ Ndiassé demee 1945 booba àddina bi dafa naqari lool sëñ Mor nekkul ci lu jàng ak jàngale. ndax booba àddina bi dafa naqari nee na mag ñi ñenn ci mag ñi dañ ko wax ne ko yow kat dangaa war a sàkk meneen pexe ndax jàng jàngale rek dëgg la baax na lool waaye àddina bi fii mu toll da ngaa war a wuti tool wala da ngaa war a def lii wala da ngaa def lii nee na moom mu nekk la sëñ Tuubaa newoon ma jox leen misaal ci tumuranke gu mu nekkoon nee na am na jamono yoo xamante ne gàmmo njaareem dañuy def ay saam bu ñu defee saam yi ngir ndawal gi ñuy ci ci nagu nagu gàmma gi nee na ay ati ati at bu ñëwee ne ko sàmba de def nañ ko ab dërëm lañ ciy joxe nee na mu leen man de amub dërëm nee na ñu dem nga xam ne du am du am du am du am du am ca ndawal gàmmo ga dem ba ci yàgg am benn bis nee na oto gaare ñëw ne ko alaaj ñu wekk ne moo la jox nag yi nee na mu woo ka nga xamante ne nii moo ko daal laaj sàmm ba nga xamante ne nii dërëm ba ne ko am nag yii boo demee nga rey ko séddale ko te bu ci laaj yow kenn bu ci laaj yow kenn dërëm maanaam barke bu mujj bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci bari le bari le alal ak bari le mbooloo ak bari le daraja ci tumanaanke gu metti la njëkkee woon waaye nag xàmmeewu ko ba muy metti ak ba mu neexee ndax sëñ moon mbay sa ni ko sañ mbay nga naan waxee léegi kër baayam ngi fi bàyyi woon moom kër googa la fi bàyyi bàyyi fi kër bàyyi fi dëkk bàyyi fi tool bàyyi fi dara lépp lu mu am rek delloo na ko ñooñu alxuraan bindkat yi jàngalekat yi bu mu demee ba am barke tamit am na ay kilifa yoo xam xamante dañ koo mere ndax booba dem na ba barke ba bëri loolu ñu bëgg ak njabootuk boppam ma bëgg mu may leen ci ay soxna loolu ñu bëri duñ ko wax waaye lu mat di leeral la mu ne man dey am naa gàcce gu toll ni alxuraan teral ma ma jël sama di leen jox ñenn ñu dut ñooñu alxuraan te booba ay kilifa yu mag borom yu barke ndax booba sëñ moon mujj gi xam nga ñëpp fay daje ci niti àddina yi niti diine yi ndax koo xamante ne nii benn bis sañ bas bàkki jigéen mi ngi wax ci ngir tënk ko rek benn bis boo xam ne koo xam ne sëñ Abdou Lahad xëy si na la ci benn bis sëñ Abdou Aziz si ñëw fa ca bëccëg ga na Muntaxa Taal ñëw fa ca timis ga xam nga loolu kon ku ku jaxasoo ñëpp la waaye nag mu ne man sama njaboot gii ci alxuraan laa la delloo ab taawam sëñ bàkki jigal la ko may xëy topp sëñ Yaaram Touré la ko may ñoo ñëpp mën nañu ren di jagal tege toppan sëñ Nooru Silla la ko may teg ba ko yàlla dindee muy sëñ Mayanda Sàmm mi ci mbooloo mi moom lañ ko jox mboolam kum jur delloo na la ci alxuraan kum yar delloo na la ci alxuraan sëñ Moustapha Guèye sëñ Malick Dieng ñëpp kopp koo xamante ne nii sëñ Mor bi mu demee ba mbooloo mi bëri boo ñëwee sëñ Alaaji Sekk rakk sëñ Alaaji Sëriñ Sekk rek mi ma koy nettali nee bi mu ñëwee moom ne ko damaa laxase Touba ñëw di jàng si nee na mu ne ko loo mën a tari mu ne ko man de mën na maa tari su ma nee na mu ne ko ay ah, yow nga mokkal alxuraan ba noppi teewul dana ko daal di dem ci kër sëñ Malick Dieng sëñ Malick Dieng sëñ Moustapha Guèye tamit taxawaay bu taxawaay boobu ñoom tamit la am ci alxuraan sëñ Mor Mbaye Cissé nag mu ne su ko wax rek wax alxuraan tamit te waxuñu lenn ci li nga xamante ni jamono gi da koo laaj fi mu nekk nii sëriñ Mor bay Cissé dara wax ne yéen murid yi maa ngi leen di digal ngeen fonk sëriñ bi waaye ngeen fonk tamit yeneen sëriñ si daan ne xanaa xamoo ne képp koo dab baayam jox ko peñab gura bu dabee sa baay jox ko peñab suukar waaye képp koo dab baayam teg ci aw làmmiñam loo ko wut a teg bu jotee sa baay bu bu jotee nopp ba bu ci mënee tegam pes dafa ko cee teg danaa ne nag ñun sëñ Tuubaa mooy suñu ndey mooy suñu baay fonk gi ñu fonk ñeneen ñi nee na fonk gi ñu fonk sëriñ bi moo tax ñu fonk ñeneen ñi bi ñëwee sëriñ bii di ñëw maa ngi koy wan mbindum sëriñ moon mbay see moom moo ko bind moo bind loxol boo xam ne man moon mbay Cissé maa maa bind ne sama mbir ci sëriñ bi la tàmbalee yam ci sëriñ bi doon wàll yi fa sama kër ndey doon wàll yi fa sama kër ndey ak fa sama kër baay commission bi lañ ñëw bi ñëwee wan naa la mbind ma fa mu ko sija doon wàll yi fa sama kër ndey ak fa sama kër baay doon ab saay-saay fa ka sëriñ Tuubaa moo ma ko waaye teewul nag dafa fonkan ñëpp jaxasoo ñëpp ngir lan fonk sëriñ bi réew mi nag fi mu nekk nii foofu la toll sëriñ bi li li mu am sëriñ tubaa jox na ko suñu borom jox na ko ba noppi maa ngi naan sëriñ tubaa euh, euh, murid yi kenn ku ne xam ne ñu bitim réew toog nañ juróom fukki at wala ñeen fukkeet at ay nit doon dem France di dem Italie di dem Amérique dem fépp waaye murid yi bañ fa tàmbalee dem amaguñ fa fukki at kër yi kër lislaam taxaw fa ay jàkka taxaw fa ay daaray taxaw alxuraan taxaw fa ay kër sëriñ tubaa taxaw fa kon ñoom seen seen ñoom génnuñ daray sëriñ mooy lu mel ni ay compagnie tamit ak société yàgg naa am ci àdduna bi waaye société yi murit yi nga xamante ni ñoo ko jiite biñ ñëwee rek gis nga ñoom yoon wañ yoon wañ sóobu loolu moom sëriñ bi da leen koo mooñaale ñoom sañuñ koo bañ ndamal sëriñ bi la kon boog nañ boole ci gën a rafetal suñu diggante yi ni ko mag ñu baax ñu doon defee sëriñ Saliou Mbacké rek damaa dégg bis kenn nettaliwuma ko maa ko dégg am daayira bu ñëw ne ko ñun day dañoo am lu ñu naqari lool mu ne leen lu mu doon ñu ne ko ñun day fañ dëkk dafa am ñoo xamante ne dañu faa daggate wax sëriñ bi lu ñu ko war a wax ba loolu naqari nañu nga loolu xam nga sëriñ bi ni mu bëggee woon bëgg gi mu bëggoon sëriñ bi ndeysaan rango ñi daal di tuuru ab diir mu daal di dal waaye daal ne man day dafa lu ma bëgg a man day damaa jàpp ne sëñ ma sàmba ak sëñ ma ndumee ak Cheikh Ibra Fall kenn gënu leen bëgg sëñ Touba daal ne waaye de seen jamono sëñ Touba xam na ne léegi koy wax dala ci réew mi nang nga koy ndànk nga koy wax te seeni jamono ñoom daanañ wax sëriñ Touba ci kaw waaye nee na sëñ Saliou Mbacke daal ne waaye légatub ma sàmba Mbacke bii góomu Seex Ibra Faal bii ba muy xeexal sëñ Tuubaa wala ba muy xuloo ka waxaan sëñ Tuubaa lañ ko jëlee kenn mosu koo gis daan nag ñoo ngi nag defar ga leen sëñ Tuubaa defaran laa bëgg yéen tamit ngeen defaroo ko kon mbokk mbokk bi bind boobu ku dem yóbbaale ko ba ñu tey fi ba déwén insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, jasaakala sëriñ Souhaïbou Cissé ibnu sëriñ Mbori Cissé ci kàddu yu rafet yu am solo yooyu yu fees dell Euh, yàlla nañu suñu borom tabaaraka wa taala baaxee dégg ak topp maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun